صلى علينا ولا اليوم بيلاي أتكتابني لماذا من بدل وفاق وسودري جل مكيا لنغن tiyaaba lu jafeñ la fa ñu koy jariñoo it fu tiis la ku la ko jàppandalal amee nga ko cant tant bu mel nii kaar xoblowuñ la bant yëkkatiloowuñ la baas jëliwoo siis laaju ñu la it cotisation ba mu mel nii leer ñu ne la kaay ñu bokk kooku amee nga ko cant ama sikkit ne saara bi ku ko ronu mën naa dox sa diggante loo ragal tey ak ëllëg ci orna yi siy gil wujudi mi nga xam ne mooy waasitatul uzma dëgg la foo tollu ñaari dégg naan booloo la ñu santaane déggoo la ñu santaane ànd la ñu santaane loolu siiw na booy na waaye kat booloo ànd jëm ci yàlla la ñu wax waxuñu booloo ànd déggoo defi leneen waxuñu loolu de dañu wax booloo ànd déggoo jëm ci yàlla booboo di bi jara di rappel toujours waaye rek nan déggoo nan ànd nekk benn te benn gi bu ngeen bennoo ba noppi xamuñu fu ñu jëmale benn gi boobu bennoo du bennoo gi alquran di wax waxtasima bi abdillahi jamia wala tufarraqu Sidi Hadj Mari ne wala fi xayri zalika bi dini taxaqaqo wolof wax na ne xar yëpp xari yàlla la waaye xaram tabaski ci raw xar yëpp xari yàlla la waaye xaram tabaski moo ca raw moo di ànd yëpp baax waaye ànd jëm ci yàlla raw ànd ci àddina am na njëriñ ndax wala tanafaa fa tazzalu alquran dafa tegle tegle bu jekk boo xam ne boo déggee waxinam dal di gis dooley teglente bi laa gi day laay naxyu la du laay nafi laay nafi dafa am laay naxyu am laa doo xam ne da lay dàq danaan déedéet ak laa joo xam ne jii daf lay tere wala tanafaa bu leen xëccoo alquran ay wax bu leen xëccoo mu indi faa teg ci ginnaaw waa wala tanaasaa fa tafsalu gis nga groupe bu ñu àndee ba ragalante ñoom ci seen bopp ñoom ci seen bopp ñoom ñu ànd ñu ragalante lu ñu songool lu mu doon loola daan leen parce que ku ne da ngay bàyyi sa xel te sa morom te xëccoo koy waral wala alxuraan yi wax de njaccar bi wala tanaasaa fa tafsalu bu leen xëccoo dafa am lu muy jur lu muy jur day wàññi doole wàññi doole day tax noon jekkoo noon jekkoo day yóbbu poids fa tafzalu wa yadhhab ankum riih waaw noonu la ko tegle bu leen xëccoo su ngeen xëccoo day jur ragalante yéen ñi waroon a bokk songo yéenay ragalante salaamu nga ma doxi ginnaaw salaamu ngay wax leneen feneen salaamu nga jaari feneen foofu nga bàyyi sa xel mi nag moo lay perdal su ngeen ragalantee nag day dal di jur néew doole ci ngeen di songoor néew doole day jur jekkoo la jekkoo la day jur not la not la day yóbbu sa poids du noonu man fekk naa sax wu rëy ci buntu kër sanqalañ wóor ma ne dégg ko fa yóbbu benn sanqalañ antanu ko sax wu réy réy laa fekk ci bunti kër sànqalañ ñu njogonalu ca añ ca reer ca mais bu ma ko toppatoo déggoo ko fa yóbbu benn sànqalañ mënu ko yóbbu sànqalañ yépp jàpp kenn su ñaagu biñ jàppee dafa dëgër ñuy bokkit fu ñu diri sa jële ñii xëccul jëm fii ñii xëccul jëm fële dañoo àndoon doo biréet ba ci bunti kër ga ñu deppo kon déggoo am na solo rawatina nag déggoo gu jëm ci yàlla jàng yi sabab bi mooy néegu yàlla néegu yàlla bu jaamu yàlla yi war a defaral seen borom néeg boobu la borom bi wax ne bu ma ca kenn nirelee kenn bu ma ca kenn dendalee kenn wa ana al masajida lillahi fala tada maa laay ahada yontu yàlla Muhammad xaalis bi mu yóbbu Medinatul Munawara ba mu àggee jënd ci giléem takku ci jabar jënd ci tool terrain la jëkk a waxaale ci tuur ba ci daaj maa li wax ne fii ci xilaas sab bi ne daa xulaa may ni te mafool lañu yàlla ñuy nasabi daa xulaa may ni fayil ja dañ ko asaf daa huwa xulaa may ni daa xulaa may ni baad alxatti wala daa marjauna xulaa may ni baad alxatti allah ji maali jasaa wala wana xayra réception bi daal li muy neex neex li muy xumb xumb tabale yi di tëgg sama yi ñu tudde mismar di tëgg giléem yu mag yi di bëmb ñuy wesaare fleur yi ñu am doole sàkk ni tàndarma ñii benn benn libidoor mais dina leer nañ ñu ngi leeru Moustapha gi nga xam ne nuuru samawaati wal aar masala nuurihi ka mishkaati fiha misbaahun al misbaahu fi sujaajatin sujaajatu ka annaha kawkabun duri yuqadu min sayyatin mubarakatin sayyitunaa waa ji nee na bi nabi dugg Medina mu ngi togg si dabi dëkk maanaam xam nga wax na fan laa ko doon waxee barki jàng yi ñu mujjee jàng nana am na tuuti erreur bu siiw bu mat a laqar ci dafa siiw ne na bee ngi jóge màkk altine mu ngi dugg Medina altine looloo siiw waaye boo yëree téere yi di nga gis ne rasulullahi capitale Makka mu ngi ko génn altine mais banlieue ba ajjuma la ko génn banlieue Medina mu ngi fa àgg altine mais capitale ba ajjuma la ko dugg yowmal arobati jàllal badru tadrukuhu salaatuha fa ataaha aayra muctatimi ak wa xarajina layaalin fihi muhtariman baraatin ankabooti suma war ko xammi Maodo ne na bañ départ ba génn capital yi màkk am nañu trois jours ca pax ma muy mardi ak mercredi ak sedi nee na it nabee ngi dugg Medina ginnaaw jullit juma da ci quatre heures et demi cinq heures la àgg capital bi ndënd yi di tëgg nag ñu di ko demandé ak daloo muy joxe ngant ñu xar ñaari mbedd booba Medina juróom benn chef de village sa fa nekk chef de quartier pénc yi juróom benn la woon bànni bayaa baa ngi fa woon bànni zahada ngi fa woon ak bànni hëj yi ak bànni chodin ak bànni najaar kenn ku ci ne sa chef de sa chef de village dogale na Moustapha xutbaan ibnu Malik ku dëkk dogale ne ko bu ñuy wax Medina pénc mee tax bu ñuy wax Dakar mboto tax wala bu ñuy wax Dakar ci déem a tax wala bu ñuy wax Dakar tilleen a tax wàccil fii la gor yi ne mu ne Amadou waa wàcc parce que maa ngi ànd ak commandant d'arme bu tudd Jibril mu ngi ci kanami giléem gi di ko jox siñ booba Jibril la ngi ci kanami giléem gi yor benn bâton bu wurus di def nii siñ giléem gi giléem gi topp Allah sallallahu alayhi wa sallam escorte bi ko topp juróom ñaar fukki junne yi malaaka la mosu ñoo tàggoo moom nag ba ni mu dee ñoo ko daal lewante par heure waaye fort Maodo la wax ne gaa yi walam yazal qailan مستنزليه معمورا ذات أذن ذوي معتصم من أجل ذلك قد ألقى سنام لها أتت تنوق تتنوق لو أن أصف جنة ساتون بجنجير سما أنت ترول بي أتا تتنوق مديس مويك تاتون بتكتشو باي بين تاتون بي تبرم ابن مالي يفني وما بتا أين ابتدي قد يختصر فيه على تا تتباين خبر ابن مالك نينا جيب فين جو خمني la ci jiitu woon taa tombe la nga bëgg ci am ko waaye geneen taa tombe soxla woon nga indi duubal taa tombe bàyyil dafa nekkoon rek ku jàng te mën a jàng xam ne ñaari fi nekkoon moo tax bi àllaa ji maa ngi ne atatana waxa mu di atatatana waxa mu asaf taa tombe gi bàyyi genn gi di atatana waxa baabal masjidi la mu cëppeelu ñu tekki gileem gi ginnaaw gi ñaq lool gileem gi xabba mu teg ko bëtam waaye àllaa ji maa ngi ne avant avant ñaq woowu fendi ne bi ne na ku moom terrain bii ma toog pour jàkk ñu ne ko ñaari xale la ko moom waaye seen bàyyi dafa dee masóoru ñu na ku ñu wax sëhal ak suhëy bi ñu ne ku ma wolu mun a xulaa may ni ci ilif ñaari xale ya kañ baadal xaq ci naa bu mu tekkee gileem nga ba ñaq wa de nit ñu ko wax ja nag comme buñ tuddee ne bi rek luñ doon wax dañ koy coupé ne gees yàlla na sall yàlla doon li xiiwal ilahi sama borom alayhi wa jumul sala rahma terrain bi laa bëggoon ñu ne ah ñun kat xaleel lañu waaye li mag ñu bëgg la ñu bëgg nee na ñu yaay ngeen jindi ndóor kon terrain bi duñ la ko jaay mukk mu ne yoon mayuma jënd jël ko san jënd ko ndax man xasaba arda qawmin walaw bi zabrin tawaqahu law yowma alqiyama atataasal ar na bi nee na ku këf suufi jàmbur donte benn meetar la bu àllaaxira dinañ ko cuqati ba ci suufi juróom-ñaar soppi ko betteex kaala la du ma jël farax du ma jël may néeg la boo xam ne bi ci lay tëru doom aada yi pour fawe leen àllaaxira fa la tëdd ba tey fa la tëdd ba tey njàpp ma mu tuddaale woon bu bés pencaa du ko yeesal sax moom lay ramoon nit ñi asrafal xalbi kooku mooy sunu siyamar maala amati Mamadou moomu mooy reddu lay ni Mamadou moomu mooy jëneenu soona ci Mamadou moomu mooy wafaasel kalaam Mamadou moomu mooy këmilen si saati Mamadou moomu mooy mu kambalan si aw salihi mooy xul xiyamaa xaaxalaawu xam lala yaa jëf leen màggal yéen ci yàlla Muhammadu mooy wala bax dooni soo dina man terrain bi laa bëgg ku ma ko jaay ñu ne ko kat gune la ñu waaye li mag ñi bëgg la ñu bëgg wax nañ ne yaay ngeen ji mbindéef moom lañ la teeloo kon nag leew nanu féetewoo ko mu ne ko leen déedéet néegi yàlla fi ma koy def day lew Sida yi Malik nag nee na waxante nag xale ya ba ki yor seen baat dikk di Sayd ibnu Saraara mottaleeg moom wax ja na bi fay ñu ne rasulullah yi yaa waxoon ne ba muy génn Makka dërëm amu ko gileem amu ko garab amu ko mu ne dafa am fu mu jële som bi mu ko feye xam nga ko Maodo mu ne xam naa ko xam ke ko ko jox xam na mu day ñu ne kana mu ne suma sara suma ci arab day am différent ak la mu topp ci koom moo tax ñu di ko wax arafu taraqaa la fu mu nekk bu ñëw ne ku toog ci taax mi ku toog ci tant bi nga ne sunu mag njong fi nekk ak jóob nga ne njong fi nekk wa jóob wa mbeng soo ne suma sekk rek ñu xam ne kenn du ci topp toujours mooy mujje suma xam nga alaaj Maalik dafa wax ne دعا غلامين ملجونا بعد العبد ba mu tekkee la oolu ñaari xale ya comme nag ku ci tudd yontu yàlla Muhammad foog nga julli ci moom téere yaa ngi wax ne bëgguñu ku ne ci biir jaayil di tudd turu Muhammad ñuy bañ a wax sallallahu alayhi wa sallam mu di leen jural alkande ëllëg ngay posan jaam yi ba ñoom buñ tuddee na bi ismu saa yi balaa ñoo jàll di ci moom buñ ko tuddee mulmar balaa ñoo jàll tudd julli ci moom buñ ko tuddee ci daafit balaa ñoo jàll julli ci moom door a def moo tax bi mu ne sumastara ah bi mu ne daa oolu na ñu ne ko oolu mu ne malje u naa sunu wéeru waay bés pay ku mu oo nga ne xulaamee ni kilifa yi ñaari xale ya kañ baa dala atte ginnaaw ba mu tekkee ba ginnaaw gileem gi féex mu coupé wax bi ne sala alayhi illaa yi mun sula wax dali génn koy ñaareel mais suma sara mu mel ni nag diggante bi dafa am différence ndax lu tax mu indi suma suma sara door a jënd door a jënd lu tax mu dugal fi suma ji mooy kon da ngay firiwaale nag ginnaaw ba ñu d'accord ci waxante waxaale waa tax waxaale waa gudd duñ ko jaay dañ koy maye duñ ma ko may dama koy jënd waaw waxaale wu guddoo woo tax alaj malik indi sumastara topp nag jënd nag dal di jënd nag ginnaaw ba ñu d'accord ku jënd maw soolu tur la ci turu rasulullah mooy fayil istara lu mu jënd almir ba da terrain ba terrain la boo xam ne dañ ci daan weer sàndarma ba mu wow ñu door ko fab yóbbu ñu ne fu mu jële xaalis te loxoy neen la ñëwee mu ne min mali siddiqi bi allahu akbar ababacar kenn du moom somba ababacar a ko indi mu complété tout mu fay entrepreneur nabi dem kër daara abo ayoba ñu def fa sept mois quatorze daaban aqama aqama rasulullahi aqama na bi sax na fañ ko dalal daaban siifari daaba del quatre ba deux lu mu doon seize lif un sept lif gële bu ko contrôlé ñaari masque gee tax mu ñëw tan wéen ngee ko fi indi kon sept mois la ñu am bâtiment ba sotti ñu jébal ko keleya mu door a toxoo fañ ko dalal nag sant fi allahu akbar alaaji malik moo tax mu ne jasaa yàlla na fay yàlla lansaar lansaar ak mu ajirin annabi nag amul dara lu mu mës a def lu saaba ya defandoo koog ñoom ci fooraa yi jàkk lu dul jàkk bañ gasee dafa dafa sos boppam meetar yu toll ni ñoom gas ko ñu àggal mënula tabax waaye muy enu mool ci boppam di indi imaar ne ko toogal may enu ñaari mool benn yow benn sama bopp di duble ñaari mool di enu na bi di ci topp di bokk mool naan ko li naasi ajirun wala ka ajiraani ñit ñi dinañu am benn pay yow ñaari pay bañ soxlaa béton it béton bañ ko soxlaa rasulullahi mbubbam la ëmb di ci ëmb béton bi yóbbu arab amuñu façon amuñu habitude di sol tubéy waaye na bi ëmb na béton di yëkkati mbubbam bañ naan ko wàccal say loxo ndax say lupp ngi feeñ ngir foray jàkk yemul woon nag di enu xeer alaaji maa yi ne da doon yenu di bàqu di kañ di yenu di kañ maa yaqul ajaal bil ajaal xaimana waa yaqul saar bil ajaal ilala xayanti waa xayal rabbi fajjini yenqulu saxara bil asaabi nga way baa googu placé maa la maa la asaabi la wa yenqulu mu ngay enu saxara móol ak xeer bil asaabi ànd ak saabam ya yemu ci yenu ba nag xaayi leen mu ngay bàkku naan laa xayra si waa xayra oxra rabbi fashini loolu loolu laa xayra si waa xayra oxra rabbi fashini di dukkat rek di wax loolu ngir fooraayi jàkk arifina billahi yi am nañ ci koo xam ne ginnaaw bu mu génnee àddina dafa am ku gént gis ko te mu defoon ku néew jëf bari feebar néew mën-mën ngir xat wërsëg waaye mu fekk ko bildin yu rëy ca ma àjjana mu laaj ko ci loo amee lii mu ne ko xaw ma ndax ba laaxira dinañ la fay fay goo xamul lu ko liggéey toujours nag dina ci am daa dem ci sa kër dina ci am yoo connaître ak yoo xamul lu ko def waaye lu ñaare dinañ la wax ne mosulaa yéene nangam ak nangam nga ne ah ñu ne yéene booba nga tële woon moom la defee lii ndax man yàlla bu ma la xañee mën-mën xañ la sa yéene kon nga gën ma waaye kenn du ma gën comme yéene nga amoon ma rocc mën-mën nga defe yéene du ma neenal yéene ji foog ma fay moo tax dañuy fay yéene jàkk rek la romb xool ko mu rafet lool muy ku mën tabax mu sànni ba tam gis benn móol bu mel ni dafa wàcc niveau tuuti mu dal di jooy ne bu ma amoon capital tey dinaa teg jàkk ji ba ci suuf pour benn móol bii mel ni lu wàcc rek niveau bi remale ko ba mu yem mébét booba wax booba ci la amee xéewal gu réy googale ci aljan te it nag sàkk pexe jot na sàkk pexe jot na ma ne képp koo xam ne sam xëy rafetul war ngaa fas jom ci sa ngont comme kenn du xëyaat ku sam xëy rafetul da ngay góorgóorlu ci sam ngont comme kenn du xëyaat ak xëy mooy bi nga juddoo ba am quarante ans li nga ci ñeme ñe woon yàlla néew na lool bi nga juddoo bi bi nga amee quarante ans li nga ca ñeme ñe woon yàlla ci sa jëf néew na boo passé quarante ans nag yaa ngi ci ngont te kenn du xëyaat kat kenn dootul doonaat gune ma ne nag ku sam xëy rafetul war ngaa fas jom ci sa ngont comme kenn du xëyaat am déggu leen ci ñu góorgóorlu ñaar rekk fi am ñi amas lëf ak ñi néewle ñi amas lëf nañ yokk seen loxo ci teraanga ndax bàkkaar yomb na leen borom koppar bàkkaar da ko yomb lu mu santaane ñu def ko fu mu fëgg ñu ubbi kon na yokk loxoom ci def lu baax ku bari bàkkaar da ngay ñeme ñu def lu baax ñi nee wërsëgit nañ moytu seen bopp bariwuñu tiyaabo ku bariwul tiyaabo day moytu bàkkaar te àllaaxira ku ci yóbbu loxoy neen ci ñàkk tiyaabo baa nga yóbbu fa bagage bu bari te muy bàkkaar musiba dal sàkk pexe jot na kat na ma yàlla baal xale yii ma gis de ku leen yaakaar pour ay lixlaas fekk si la te sa bàmmeel boo wattuwul nuppe premièrement jaarale wuñ leen te ñun ñu leen jur jaarale wuñ leen foofu ndax yàkkamtee amas lëf ba dum laata jàngi alquran ñu dugal ko ci l'école te balaa caa génn lanca école mayewul jabar julliwul niiw ñaanalul niiw xettaliwul xettaliwul xettaliwul ku ne ci bàmmeel ku ci jur nag koo xam ne xam nga ne ba mu laata xam dara ci alxuraan tegg nga ak moom dem ca daara ja mu lan fa ba génn ci mosoo soo ko jiitoo àllaaxira di séentu faatiyaam maax yàq laamit nax nga sa bopp am déet waaw yaa ko def yàlla def ko dañu wax ne waaja dafa tere yàlla ngune sa yàlla it xaar ba ngune sa di waaja mu tere ko góor ga fekk léegi waaja dem na ba ca góor ga waaja waaja mooy borom kër bu ndaw bi amas ndoomam waajooju moo tere ngune si yàlla ne du jàng alxuraanam yàlla di ko seetaan ak ngune si ba ngune si di waaja waaja di góor ga yàlla it dellu si tere góor ga waaji mu dem asalem am kër takk ku mu bokkulul waasa def fa xaj bu soxor pourtant góor gu mag lay seet mu ne amata yaa tere woon yàlla parce que doom ji da ngeen ko séq jox ma sama wàll ma jox la sa wàll boo ko xañee wàll mu xañ la sa wàll bu ngeen dajee mu dugal ñu wax nag ne bokk na ci yi nga xam ne boo demee àllaaxira yiw wa di la fekk si ñu ñeentiir kon ñu jéem a def yooyu ku la yónneewul dara nga di ci jàpp te yàgg ci bàmmeel kat baax na si lëf am na ñoo xam ne bés ba ñu dee bu bés nañ ci taxawoon keroog musiba dal leen ndax bu fekkee tey nga dee yóbbuwaale quarante kilo ci yiw ak cinquante deux ci càncañ bu ñu réglé musiba dal la waaye boo fa tëddee ami bokk ñu dee sànni si lëf te bàkkaar bi du yokk tiyaaba ci yokk boo fa amee un an daal di romb sa
لا ترى بالأذان خائلانا وينقض سار بالأذان خائلانا فينتي وغير ربي فاجتني